Sonko dafa def ñaari erreur ñaari erreur dama lay jàngale de dama lay jàngatal. dëgg ñaari erreur yi def. bi ci gën a monumental. waaw mooy mooy li Macky la defoon. daf ko li Macky la waxoon. daf koo répété. te koo xam ne da nga oote e, idéologie bu bees. waaw waroo répété communication passée. waaw Sonko ñëw répété la même chose.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 beneen bi topp mooy sénégalais yi dañ koo dañ koo jëlal en loolu xam nga li lay xamal Sonko pouvoir am dem na te wàññi na wàcc wàcc na demal ci élection yi ñi uh-huh. nga si bi ngay di voté ji xam nga ñi dem ci urne yi fekkuñ fa foto Sonko déedéet déedéet ah bokkul xam nga fekkuñ nga lu tax uh-huh. bokkut léegi ñi demoon voté ji ñañ lañ ñañ tànn. ñooñu lañ bëgg. dëgg hmm? Hmm? ña tànn ña tànn PDS. waaw P Macky ak Abdoulaye lañ bëgg. ña tànn Mimi. waaw lañ bëgg. dëgg dégg. dëgg la ña tànn euh, Askan Wi. waaw yaa ngi dégg. waaw euh, lañ bëgg. Khalifa lañ bëgg. yaa ngi dégg. ña tànn euh, Pape Djibril Fall. waaw Pape Djibril Fall lañ bëgg. Sonko. xam nga ñoo ko ñoo àndandoo moom.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 moo tax comme moom demut. waaw moo tax ñoom ñu toog jàngat boobu defuñ ko. Hmm, te alors que ñooñu daf leen waroon bàyyi ñu toog. ñooñu non seulement daf leen waroon bàyyi toog pour moom. mais daf leen voté li joo ba mu leen demee ba mu demee voté ji. waaw sëgg biñ sëgg ci urne bi. xool gis keneen ku Sonko. moo moo ko xañ ñooñu.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 parce que ñoom amuñ temps xam nga sa Sonko. Uh-huh. amut lu concret ay énergie la yore yoo xam ne c' est des ay énergie la ak ay esprit mu bëgg a wax kan mooy Sonko d' abord. avant Sonko. waaw amut lu palpable seen ko li ko topp yëpp c' est des esprits maanaam ay ay ay fictive ay. ay nit yoo xam ne existé wuñu boo demee dans la réalité n' existé wuñu dañ leen di